émission Vision kon nag abonné te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo mbokk yi ak digital store coono wàcc na leen jaaxle jeex na digital store indi tina gamme smartphone ak tablette android yu bees tax dëgër këcc day téléphone yoo xamante ni entreprise bii di Crosscall daf leen defar ba noppi garanti leen juróomi at ak batterie yu dëgër yu nangoo yàgg lool te wér jënd leen gaaw seen gamme téléphone M5 wala X5 wala T5 wala s juróomi at lañ leen garantie looloo ngi doog am nag ci téléphone mobile entreprise bii di Crosscall ñu ràññeeku ci liggéeyum télécom moo def li ni mel gaamu téléphone yi M5 X5 t ak S4 di ay téléphones yu bees ndox du leen yàq choc du leen yàq dara du leen yàq mën ngeen a dem ak moom fu leen neex moo xam bureau la wala géej wala sax ngay sàmmi wala ngay dem tool wala ngay sport wala ngay liggéey ci chantier dara du leen yàq daw leen gaaw ci sunu boutique showroom bi nekk ci avenue Bourguiba wala ngeen woote ci numéro bi 33 825 73 00 wala Soumbédioune sur la corniche ci numéro bi 33 823 77 87 digital store améliorez votre quotidien xoolal borom kër gi buntam dafa naqare ubbi soxna si moom caabeem dafa dëkk ci cang ci bunt bi ba faf dafa mujj damm ci bunt bi soo bañuy dund lu mel nii demal Touba Quincaillerie général loo soxla am na ko ay poignée de porte yu dëgër te rafet lool waaw waaw rafet lool sax ci design boo bëgg si qualité laiton wala inox am na fa ay serrure électronique am ouverture carte code wala empreinte digitale ay pommelle charnière ak bépp accessoire finition menuiserie ay kanu ak serrure de sécurité ci marque Touba Quincaillerie Générale caabi du dugg di can ci buntu bi waay ay vachette ak brica ci qualité bu mucc ay te nangoo yàgg ay contreplaqué yu dëgër seet si ñu di nga am ca Touba Quincaillerie général li nga bëgg ci qualité ba noppi méngoog jamono ci njëg yu xéewale ñun waa Touba Quincaillerie général fonk nañu suñu kàddu te qualité rek ci la ñuy dox Touba Quincaillerie général Kër Damel extension rond point 26 ca Parcelles Assainies Touba Quincaillerie Générale 65

noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal di ndokkeel jullit yépp ci bés bu màgg bii nga xam ne moom la ñuy dëkkmal di ñaan sunu boroom fee ñay ak taxaw tey muy arafa ak la cay topp lépp yàlla na suñu boroom sëmbërtal yërmandeem nangu ñaan ñañ fay ñaan yépp te tasaare ko ci àdduna bi yépp muy bis yoo xam ne lépp am njàngat la bañ ca tànn tey nag di ci fàttalante ak képp ku ko nangu sunu borom mi nga wax ak ñun ci naan képp koo xam ne xool na gannaawam xam ne fa mu tegoon tànkam du fa mu dëpp rëccu ko te fas yéene du ko fa tegaat mukk loolu ab jéego la ñaareel ba mu kennal yàlla wóolu ko ñaar ñetteel ba teg ca lépp lu mu jëf xam fam ko teg ak nañ ko ko sante yàlla nee na ëllëg kookee ca ñay texe ëllëg lay bokk fa amma man taaba wa amana wa amila saalihan fa asa an yakuna min al muflihin kon yàlla na nu yàlla dimbale ba nu mën a kennal suñu boroom te wóolu ko teg ca ndax loolu rek ci la di amee li mu bëgg fii ca la koy amee ëllëg bokk yi kennal yàlla te wóolu ko mooy musal ab jullit ci fuy fii waaye moo koy ñag ñeg bu dëll ba du fa mën a génnati di def leneen luñ koy joxañe ëllëg ndax kennal yàlla te wóolu ko jëmewut ab julit fu dul fa ko gënal euh, fa koy gënal nag ëllëg mooy lépp lu muy jëf rek mu xam fa muy teg tànkam du ko xam yam ca waaye mooy fañ ko ko tegloo mu yam ca kepp bu ko fa tegee buy teggewaat mu xool fañ ko joxoñaat mu teg ko fa yam ca kepp su boobaa di su ci jullit bi lu dul bis bu set muy gën di leer leerug jë di gën di leer leerug xol waaye di gën di wan gannaaw safaanub loola ndax meññatum kennal yàlla te wóolu ko du ay wax kese daa war a feeñ ci ay jëf la muy jëf doon lu baax teg ca ku settantal alquran kemuk déggam dana ca fekk aayay alquran yuy tegtale kennal yàlla wóolu ko di ko jëfe maanaam di jëfe ay ndigalam ana fu muy mujj ak nit ëllëg bu ñu demee ci alxuraan danañ ca fekk mu ngi suratu yunus inna alladina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim ñi nga xam ne dañoo kennal yàlla te wóolu ko di ko gungee lu ñuy def ñu xam fañ ko teg te lépp di doon lu baax seen kennal yàlla ga moo leen di wommat ba àgg ci barab boo xam ne tajri min tahtihim al anhaar yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anhaar fi jannati naim yal na nu ci yàlla boole waaye kennal yàlla it te wóolu ko di ko jëfe am nag pay ndax aljana yi li ñuy limu yépp kawente nañ ay daraja gën nañoo neexante am na fi muy wax ne na ngeen xam ne ku kennal yàlla te wóolu ko boole ko gunge ko ak i jëf na ko ko yàlla digale lu mu ca wéet wéet ak lu metti metti du sànku inna alladina amanu wa amilu salihaati inna la man ahsana amala waaye daf caa teg ne ku kennal yàlla te wóolu ko gunge ko ak jëf nekk ko suñu borom sante bu ëllëgee jannatul firdawsi mooy doon seen kër waaye du doon benn jenn jànna rek waaye ay jànnaat lay nekk inna alladina amanu wa amilu saalihaati kaanat lahum jannaatul firdawsi nuzula bokk yi nag kennal yàlla ko suñ ko misaalee ci njanaaw ñun njanaaw yi ñu lu ca nekk am na ci yuy di dem am na ci yoo xam ne dañoo mel ne ñoom duñ naaw waaye yañ ñoom ñaar xeet yëpp ku ci nekk yaare laaf lañ xamal lañ ko xamal agun kenn nattabliwul ne ka naaw di demu yoonam moom bu ñàkkee mel ne laafam duutu dem fenn waaye kii nga xam ne daa yor yaari laafit te léeg-léeg nit ñettamal ko mu bëgg na për dalifale it su amut su ur lu mel ne laafit du mën a yombe noona ci moom ku ko dàq mën nga koo jàpp ñu ne kenn yàlla te wóolu ko su fekkee ñanaaw lañ ko misaale su mel ne laaf ma dañee moo tudd njistal mën naa am mu fas ko waaye jëfu dara luy jege sax la ko yàlla digal su boobaa kuy njistal la njistal nag ku koy def bëgguñu ñu fay ko na dem cek ña mooy njistal walla boog muy iddia propagande di wane na la nefe moom néew ci kenn ñu daw wutaliku te boo demee doo fekk dara ndax ñanaaw lu yor menn laaf la waaye bokk yi kennal yàlla te yàgg te wóolu ko su fekkee nit ki day jëf li yàlla digle lépp waaye kennal ga yàlla ak wóolu ga yàlla des na kooku moo tudd ab naafeq bu nit ñiy def muy def waaye fasu ca dara te naafeq ni ko sëñ bu mag bi leer la woon mi ngi mel ni kuy ñaw te fasut cat la lu mu boros boros bu xëccee wañ ga lépp maase topp wañ nga mu jeex danuñ ca mu musal waaye bokk yi kennal yàlla ak wóolu ko su àndut ak jëfe ndigali suñu borom yi propagande dong la ni ñuy def picc yi ci àll bi këpputal leen fab lu mag loo xam ne bu daanoo ci seen kaw nga jàpp picc yu bari nga def as ndox akus pep ci biir te ñoom ñoom la ñuy wër ñu ñëw ba agsi ba defee nañoo ci nekk nga daane mbëpp nga ci seen kaw yaar daje na ca tas yaakaar ak wor wor wor leen mooy dañoo yaakaaroon ne da ngay def rek te yàlla tax ndekk yàlla taxut waaye tas seen yaakaar dafa woon ne dañuy lekk ba suur naan ba man dem seen yoon ndekkite yow déedéet ku dégg wolof da xam ne may wax lu doon waaye bokk yi kennal yàlla te wóolu ko nag boole ko jëfe ndigali suñu borom yi mooy warlul nit ki warlu boo ko déggee mooy garanteel nit ki dund gu teey gu dal te nii mu ko amee ci àdduna na la koy amee ëllëg ndax ni mu koy amee ci àdduna mooy du ruus a jaar fenn du ragal a gis kenn du ragal a jël benn numéro téléphone du numéro du ragal a dox fenn ñu di ko fa gis loolu ku ko yàlla defal ci àdduna defal na ko saada mooy teexee gu tàmbalee tey mooy dund gu teey dund gu teey amut fu muy moytu amut ku muy moytu waaye ëllëg la jëm bu ëllëgee bu ñu koy fay bu ko yàlla fayee yàlla mooy fay dana ko fay dollil ko ca ndax kenn ku nekk boo ko liggéeyalee nam tollu woon noonu la lay fayee bu xolam seddee ci sab liggéey mooy fi mu waxee ne man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuxyiyannahu xayaatan tayiba al iman wal amalu saalix wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yacmaluun waaye ci <clears throat> kennal yàlla te wóolu ko it ci la <clears throat> xelum nit di dale xel mu dal jëlale naa rusoo jaar ci menn mbedd rusoo gis kenn loolu ñàkk ay bor mën na koo jox nit loolu nit ñi mën nañ koo xam waaye léeg-léeg ci biiru xolam it mu xam ne def na loo xam ne bu ko yàlla jégalu du baax ci moom nee na euh, al iman wala amalu saalih rek ci la ab xolum nit di mën a dale xelum nit am na fi mu waxee ci alxuraan ne ala bi dikrillaahi tatma'innul am <clears throat> melokaanu kenn yàlla te wóolu ko mooy koo xam ne lu muy def rek danaan yàlla yàlla bu saxee ci moom nag saa bu tëddee mën naa nelaw te bu nelawee it bu génnee bu jógee day sant yàlla xam ne am nañu nelaw jaaree noonu dem am nañu ñit bala ñoo nelaw sonn lool moo tax bi sëriñ bu mag bi di leeral <clears throat> inna alladina amanu wa amilu saalihaati yahdihim rabbuhum bi imaanihim da caa am ku ne tonet ne ko xool ma man damaa nii mu ne ko sama yoon nekkut ci yow bàyyi su may wax nga dema toggale gannaaw jàngalekat la woon nag kuñ daan laaj la bokk yi léegi la xew mag walla boroom xam-xam toog cimpéñ ci wax ba àggal kenn du ko laaj benn laaj am ku ne ko al iman wal amalu saalih luy njariñam mu ne ko ci àdduna di kenn du la yàpp muy ku jub rek daan ne da ngeen dégg gone gone yi wàcc leen garab gu nekk mango gi guyaab gi dimb gi mas ngeen a dégg wàcc leen ron gi gone yi wàcc leen ron gi ñu ne déedéet mu ne jub gaa ko ko may kenn du ko yàpp ak ron noonee mu ne coow ba ca kaw waxuma la gone waaye mag sax yëbu ko ba naan mag ñi wàcc leen ron gi benn ron moomu nag lu mu nekk nekk ci aw xur lu xur wa xóot xóot boo ko séenee defee daa gàtt saa boo doxee ba àgg ci moom da nga xam ne ron gam doonoon rek la doon ku jub kenn du la yàpp mooy ko kennal yàlla te wóolu ko yam ca di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem bokk yi loolu kum ne ci moom xew-xewi jamono yi di tiitalaate du ko tiital naqarik jamono du ko jaaxal xat-xatuk jamono lu ñuy jënd kenn mënul koo jënd soo amee loo ko jënd it saa boo demee ñu yokk yokkuwaat na du la tiital waaye loo lay tiital mooy ñëpp bàyyi nañ fi santaane suñu borom yi wan ko gannaaw looloo ko war a ti looloo tiital moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon al muminul qawiyu xayrun wa ahabu ila allahi min al mumini daif al ni ko waroom xam-xam yi leerale mooy ki teg tànkam ci kennal yàlla ak wóolu ko bu fekkee sax na ca dara du ko mën a yëngal mooy almuminul yi mooy ku dëgër koo xam ne rëng-rëng jamono dara mënu ko yóbbaale tey la réew mi tàkk du ko tiital tey lañu rey nit ñi du ko tiital tey la ñëpp yi dee du ko tiital gannaaw ña koy wax ñu ngi fi tiitalu ko xam na ni yàllaa nekk fépp am na ko bañ koo nee dañ lay sànki dootoo gis sa waa kër dootoo leen dégg dootoo jot ci kenn kenn dootu jot ci yow dana ay ca yóbbu leen ma fu yàlla nekkul yóbbu leen ma loolu nag ku ne war na koo jàng ci bis yi nga xam ne moom lañuy ñuy séentu yonent yi joxe nañ ci ay misaal ba tàyyi kenn ku ne ci ndum mbooloo mu ne gàññ am doole lool doole sayir di leen fexeel waaye duñ ko yëgal seen yaram yonent bi sallallahu alayhi wasallam dund na ko ci xunti moom mu duggoon ba noonee ñëwee ba tiim ko Seydina Abubakar naa ko ñu ngi nii dana ko laa tahzan inna allaha maana ñun ñoo ko yàllaa ànd ndax dañ koo kennal wóolu ko te li ñuy def dañ cee am ndigal kon moom mi nañu jóg leen dem xam na fañ jëm xam na lañ fay fekk te am na ku ko doon am na ku doon <clears throat> tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wiqaayatullahi aghnat min adduruci wa an aalin min al ku yàlla aar aaru na ba noppi moo raw mbubbi mbubbi koŋ yi ñuy sol boo dóoree mu foddat bokk yi foofu la ku kennal yàlla wóolu ko di nekk lu ko yàlla laaj mu xam ne moo ko ko joxoon mu ne ko am su amul lu mu ko dolli delloo ko kon mbir maa noonu yàlla na nu yàlla dimbali ba wannu kennal ko ak wóolu ko bu ñu ko wanee it yàlla nañ am kàttan ak mën caa teg suñu tànk bu ñu ko teggee suñu tànk it yàlla na nu dimbali bañ bañ koo teggi ba faw yàlla nañ ko fekkee ay ati at te at mu ci nekk fekk nu ci ak wér te fekk ñuy kennal yàlla te di ko wóolu ba faaw yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina